Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, mara bu mag la nuyu di la ziyaara di la baal xaq di la baalu xaq di sàkku ci yow euh, ñu xaq mu mel ni dañuy dellusiwaat ak Cheikhul Haaji Malik Si radiyallahu taala anhu fi nga xam ne fi la ñu yemoon ak moom ci xutbatul jumaa bi tolloon ci xutba ñaareel bi gannaaw ba nga xamee ne sant na sunu borom subhanahu wa taala mu mel ni nag dafa jàkkaarloog ñi muy waxat ne i ayyuhannaas iyaakum wa taxaaluf mu ne yéen nit ñi yéen laay wax maa ngi leen di wattandiku loo ak wuute ak juuyoo juuyoo goo xam ne dara lalu ko lu dul ay bakkan bokkuma ak kii parti bokkuma ak kii ab sëriñ te ngeen bokk benn tariqa ah bokkuma ak moom bokkuma ak moom ci ñàkk folo bokkuma ak moom syndicat bokkuma ak moom société bokkuma ak moom fu ñuy liggéeyee yooyu yëpp nee na wuute yooyu maa ngi leen moo kay moytandikuloo wala bokkuñ équipe buñ far ak bokkuñ nangam nangam ak yooyu yëpp ay bànneexi bakkan rek la moo tax mu ne ayyuhan naas yéen nit ñi iyaakum maa ngi leen di wattandikuloo wata xaaluf ak juuyoo mooy ak wuute ndax wuute kat day tax ngeen néew doole te su ngeen néewee doole day tax ku ñëw jaar ci seen kaw mu mel ni ñi kaa déglu ne ko waaw lu ñoo def mu ne waatasimu bi xablillahi wa kon nag langaamu leen jéem a muccee ci buumu yàlla gii mu leen yoor te mooy alquraanu karim yéen ñëpp ngeen jël ko seet genn buum gim leen boole nim leen sante ngeen di defante kon wuute bi daanaka xaw nay mën a ñàkk ndax koo xam ne yéen bu ngeen dee julli yéen ñëpp allahu akbar ngeen di wax ngeen jàng fatiha dangeen di liqaam wax allahu akbar jàng fatiha jàng saar jublu penku ah taaya sëlmal te lépp benn la kon wute gi daanaka mënu mënu mënu mënu waru waru ko mag hmm? kon yi sew sewaan yi leen di wutal daanaka jëru ko bu ngeen ko xoolee moo tax mu ne si mu mooy leen langaamu leen bi xablillahi ci buumu yàlla gi wa taaluf ak dëppoo itam maa ngi leen koy digal ngeen bennoo ndax nag wuute ci yu ñàkk solo yi nga xam ne du dara du def lu dul sànq leen képp lépp lu ngeen bëgg seen diggante seen borom da leen di jafe lool waaye saa bu ngeen nekkee benn di xàccandoor di tegandoor lépp lu ngeen yóotu mën ngeen kaa jot mu ne wata fu maa halaka man qablakum illa bi nee na wuute ñi leen fi jiitu woon dara dara esegloowu leen dara alagu leen dara yàqalu leen lu dul wuute moomu ñu wuute woon rek ci ñàkk solo kon yéen nag na ngeen moytu loolu moo tax mu ne wa taxaalufu juuyoo mooy wuute maa halaka alagul man qablakum ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon alaguleen illaa bihi lu dul ci wuute googu rekk ci la ñu yàqoo li leen dal yëpp ci leen dale góor gi nag ne wa bihi yaaduna dahru binaa bi jamono nag saa moom day bëgg nu wuute ki jaar fii kii jaar fële kii jaar na le toujours ci lay ci la ñu ŋànkee ci ab sellam daal wa bihi ci wuute googu naa yaaduna danañ ci màttee addahru jamono bi naa bi ci sellam googo ci la ñuy jekkoo def ñu lam ñu bëgg a def mu ne wa fil xadis laa tadxulul jannata xatta tuuminu ñëw na ci xadis yenent bi sallallahu alayhi wa wax ne du ngeen dugg aljana mukk mukk mukk lu dul da a gëm yàlla gëmin wér wala laa tadxulu du ngeen dugg aljannata aljana xatta tuuminu lu dul da ngeen a gëm-gëm gu waaye ngëm gi wér googu itam ngëm yàlla gi du mat mukk mukk mukk du rafet mukk lu dul a bëggante walan tuuminu xatta taxaabu du ngeen ngëm gu rafet ngeen bëggante li nga yéene sa bopp nga yéene ko ñëpp ci lu baax qaala taala wa'tasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu sunu borom bukkaay boobu nee na mooy leen langaamu leen jàpp leen bu baax a baax jéem leen muccee ci buumu yàlla googu te mooy alquranul karim jéem leen ko def mu nekk muccekaay waxta si mu mucce leen langaamu leen bi xablillahi ci buumu yàlla gi jamian yéen ñëpp ñëpp ñëpp langaamu leen ci jàpp leen ci mucc leen foofu ndax alquran mooy muccekaay bi wala tafarraku waaye bu leen teqalikoo ngir yu ñàkk solo yoo xam ne tabaarakallaahu du def lu dul sànq leen leneen lu ngeen jàpp nag lu dul lii du ngeen dem fenn moo tax mu ne wala fi xayri zalika ci leneen lu bokkut ak lii da leen di tardel te xàkkaku kon na ngeen dëggu bi diini ci seen diine jii te mooy alquran ak sunna jàpp leen ci su ngeen ci jàppee mucc Seydul Haaji Malik nag nee na ni ma gisee senegal gii kenn ku ci daan bëgg naa wér bëgg na jàmm bëgg na ko fii muy dund bëgg na ko it ci kanam borom bi subhaanahu wa te fii luy tax muy mucc lépp loo xam ne seen luwaay adduna yi ña ngi koy def ña ngi koy tere ña ngi koy def te naan bëgg ngaa mucc kon jaaragoo yoonu mucc de fële ci yowmal xiyaama itam lépp lu yàlla ne ko ko def doo mucc fii ñu nekk ci àdduna ña ngay def tere yooyu ak loolook loolu seen kemtalaay kàttan kon ku ci wax rek nga ne yàllaa jàngal waaye ku ci jëf nga ne iblis ka yar ci foofu daal lañ toll ñoom daal ku ci wax nga ne yegg na waaye ku ci jëf nga ne cëm mu ne wa subulal aafiya yoonu jàmm moo xam jàmmi adduna la wala jàmmi àllaaxira al yow ma tey fii ñuy dund daal laa tuslak duñu ci soobu mukk mukk mukk ci ay kàddu kepp kepp kepp waaw léeg nga gis nit koo xam ne wóor na lii muy def dafa gisul ko ko ne arrêté rek waaye xam ne sax moom li muy def du yoon suñ ko jàppee nag ah kon loolu it baaxul wax ne da bëgg jàmm te yoon wa ñuy jaar pour am jàmm jaaroo ci benn yoon ah dina jafeel jàmm nag wala yu yazaalu yukazibuna lisaanul xaal nee na ñun daal duñu dañ mukk suñu làmmiñ mooy suñu doxalin suñu melokaan di ñu fen loo lisaanul maqaal dafa am waaye lisaanul xaal it dafa am lisaanul maqaal mooy loo wax lisaanul xaal nag mooy nga xëy war a dem tool gàddu si mbang gi ŋoosi ŋoosi gi jël machine yi takk seret yi ku la gis doo laaj sa xaal moo koy wax ne kii de tool la jëm bu fekkee ci dëkk mool itam koo gis mu sol baas gàddu aw wat ah takk ba dëgër dalay wóor ne kii ci géej ga la jëm kenn ku ne secteur ba muy yëngatu daal lisaanul xaal daal mooy su melokaan daal ñun nag ku ci wax ah nga ne yàlla rek ñor waaye su jëfee rek xaalam rek dalay wan ne kii ndeke dara du ci dëgg wala yasaalu du dañ mukk yu kazibu naa duñu fen loo lisaanul xaal suñu làmmiñu melokaan moo ñuy fen loo wax ne ñu ndeke li ñuy wax ak li nga xam ne moom lañu ñu melokaanoo du dëgg li ñuy xeeñ daal di woowuñu ko maa lanaa illaa uyunun naazira laa tubassir nee na tey nag amuñu bët yoo xam ne day xool te du gis li muy xool <laughs> maalana amuñu tey illaa uyunun dul bët yoo xam ne naatira aji xool la te bët yi laatu basir du gis dara dara dara dara dara wa qulubun xaasiyatun laa tufakkir ak xol yi wow koŋ yoo xam ne duy xalaat dara dara dara dara soriwul xalaatam soriwul xalaatam ci dara fama asadda samamal aadaan nee na lëf lu màgg te yéeme moo taral tëxu nopp yii ba li ñuy wax li jàngalekat yi jàngale di ko jàngale ci alquran ba nopp yi mënuñu kaa dégg nee na fama lëf lu màgg te yéeme asadda moo dëgëral taral samamal aadaan tëxu nopp yi le nopp yi daal niñ tëxee daal la leen tëxal rëy na li an anna rahaina kat uliqat inda cheytaan dafa mel ni ñu nag sunu tayle daal dafa welli ci seytaane tayle gu welli nag comme ni nga ko jàngee woon rek tayle nga mbir mi gannaaw ba nga ko taylee na waa ji dinaa ko jël da sàngam dat booba bu ñu demee ba àgg ci te waa ji gisul la tayle gi am na droit well welli mooy lan mooy bu ko neexee mu jaay ko jël ci lam la nga ko ameel dencal la fa la ca des wala mu téyee ko noonu ba keroog nga ñëw wala boo ko mënul jël rek waa ji féete woo ko loolu mooy tay rek wel li an na ñun nag dafa mel ni dañuy jox suñu bopp seytaane te mënatuñoo nangu suñu bopp ci seytaane te loolooy dëgg jébbal nañu suñu bopp iblis façon ngi jébbalin woo xam ne mënatuñoo nangu suñu bopp ci iblis hmm? del déglu rek li an na raha ina naka tay lay kat uliqat ajeef na ko walla wel na inda seytaani weleleef na ko ànda seytaan fa seytaane te sunu borom moo ñu waxoon fattaqiduhu aduwa kama qaala jalla wa ala uluwa